sénégalais yi ñoo war a tànn ñiy bokk parce que sénégalais yi ñoo tànn war a nekk président dinañ ci ñëw assemblée nationale ñoo ngi fa léegi loolu loolu yëpp ni mhm. nga kiiwee mu sortir par la grande porte je ne dis préparer sa retraite présidentielle mais il est jeune waaw mën na non il même la futur, président de la République pour pouvoir travailler encore pour le Sénégal. man foofu laa koy xaar. d'accord parce que yaakaar naa ni nag. Mhm. il n'est pas encore trop tard pour lui de rectifier le tir te yaakaar naa dina am auteur boobu. d'accord man maa jàpp ni du mës a fàtte. Mhm. la ka fal situation seen seen njiit. malgré erreur yi mu fi euh, jamono ji mu ngi ci benn benn résidence sax surveillée mën nañu ko mhm. tuppee noonu. alors euh, woote na ba ba tàyyi pour ngeen génne ko ci mais ba léegi vraiment mu ngi si situation boobu noonu. Euh, gis naa ko fan yee sax mu woote ab méga meeting bañ leen ko daan gàntale nangu na ko à la place mu def euh, concert de casserole alors situation Ousmane Sonko boobu noonu yéen da ngeen ci nar a nang ànd nii ba kañ. nu nu mu demee noyel gi ngeen di noyel fan yi lan la. d' abord ma rectifier il n' est pas en résidence surveillée. comme ku ko nekk ah, comme mu ngi si séquestration. ah d' accord parce que résidence surveillée mooy assigné la à résidence soit c' est une décision judiciaire wala te ñaar yëpp benn amu ci. donc ci séquestration la nekk transformer sa maison soo domicile en prison loolu barricade nañ ko du du doon da nga du da bëgg a wax ne Ousmane Sonko dafa war a génne ñëw tojante bopp ak policiers yi nangam sangam pour gagner. non est-ce que na essayer génn dem ñu ne ko doo génn dugaatal. wala affaire yooyu non image yooyu yëpp mu ngi circuler

jamono jooju Ousmane Sonko toppoon na tàngam toppoon na fitam gisoon na ni kenn du ko toroxal. mais sa son entourage proche ñoo taxaw ne que écoute pour des raisons de sécurité. policiers yi nag force de l'ordre yi sànni woon nañ lacrymogène lu fa ne def ko lu ne pour jéem a sa à sa à sa santé loolu yëpp weesu na beneen bi mooy. Hmm. sànq maa lay wax ne il est sous sous séquestration. ma koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem. te loolu nag plus ça dure plus l'image du Sénégal est li baaxul tout le monde entier nous regarde gis naa benn ministre di tax ne waaye c'est pour des raisons de sécurité parce que gis nañu bu génnee y a des bains de foule qui vont se drainer personne mais loolu déjà aveu de faiblesse la c'est un aveu de taille gis nga ne kii saa yu génnee këram Sénégal gi boo wàcc ànd ak moom mais attends nangu leen ndogalu yàlla te xam ne kii Sénégal non dana nit ñi faatu wax quoi non non wax kooku pourtant moom moo waxoon. ne Kolda la fa xewoon ba nit gaañu fa. ba nit gën a fa àdduna ay manifestation benn caravane non déclaré la woon. le procureur de Kolda a pris son contre-pied pour communiqué wax ni si à la suite de passage de nervis que cette personne a a a perdu la vie. procureur bi damay wax ne courage bi mu am noonu ba mu koy def noonu sax xam na ni mën nañ ko dax à tout moment mais pour wax ne Sénégal foofu lañ toll. ma ne Sénégal foofu lañ toll maintenant boo fi waxee dëgg ñu ñëw taxaw gis nga fi li fi amoon ay cas de mort génn mais attends démentir carrément la communiqué du ministère wax nañu ne barrière moo leen rey nga dégg ñaan naan non kutoo nañ ko kii wala yàpp nañ ko dooru ko dafa lab ci géej hélice moo ko laal gis nga li fi am maintenant. Hmm. pour wax la ne la li fi am dafa ñaaw. maintenant Ousmane Sonko il est sous séquestration on a tenté à plusieurs reprises quand même de d'enlever les barrières. waaw xam nga ci nga combat politique. combat politique mais lu tax lu tax réussir goo leen ak combat politique ak ak ni mu leen ci woo yëpp lu tax réussir goo combat combat politique la stratégie la day jot Ousmane Sonko hmm. moom xam na ni wéetul di ko libéré jëfee non dama xam na ni wéetul ngeen ko libéré jëfee la wala bu soba yàlla ak yonent bi Ousmane Sonko on va faire sauter les verrous ah bon non dama ni Ousmane Sonko incha allahu hmm. lépp lu mu laaj barrière yooyu dina jóge foofu barrières yooyu dina fa jóge parce que c'est illégal non dama ni parce que c'est illégal ñu jël ko séquestré ko à ce point bu fekkee dañuy saisir cour suprême dinañ saisir cour suprême ah, bu fekkee bu fekkee la moo tax bu fekkee combat yooyu la dama lay expliquer dama pour man da ngay da ngay def dara yu <laughs> xam nga ñun on est très civilisé xam nga ah, Ousmane ma wax la léegi ne la oote woon nañ benn méga meeting waaw benn giga meeting waaw pour son investiture éventuellement fêter son anniversaire et pourtant boo waxoon joxe woon ndigal ne malgré l'interdiction nous maintenons yàlla xamante ni Sénégal dañuy mobiliser wu dem. fu fu ngeen ko dama ni dama bu fekkoon dama ni bu fekkoon dafa joxe ndigal mais dafa xool la situation en toute responsabilité ne en lieu place malgré que ñii dañu def teguñu ko fenn interdiction bi la ñu la ñu mbubboo teguñu ko fenn. Mhm. mais mën nañ ko remplacer journée bi yëpp def leen lii ak lii ak lii ak lii mais dama si sant yàlla sunu borom. Hmm, ci naan. parce que en lieu et place lañu def moo gën a efficace sax giga meeting. lu ngeen def yéen. non xaaral tëggi tëggi bool. <coughs> xam nga concert de casserole ça retentit maintenant sur toute l'étendue du territoire national. loolu te tëggi bool sax dégg naa am na ñu naan baaxut de ci réew. waaw loolu ña koy wax moom yëpp dama ne ña koy wax seen kër ngeen bàyyi loolu seen kër chaque jour nga dégg fa ay bool yu ranjang ranjang ranjang ranjang <laughs> te ñu ngi taxaw di ko muñ mais li am ba des mooy. Uh-huh. bari na koo xam nekk na ko xam ne mu ngi nekkoon Kolda. waaw wala Tamba wala maatam wala Linguère wala Saint-Louis. Mhm. xaj na mënul woon a ñëw. Mhm. manifester son indignation. parce que Ousmane si bii mais également manifester sa solidarité envers le président Ousmane Sonko kooku may nañ ko occasion mu exprimer ko fa mu nekk sa biir Kolda fa mu nekk sa biir Makka Koulibantang. d'accord moo tax ma ni la ça a retenti. d'accord te ñëpp xam nañ ni. Mhm. léegi rek ma may dugg sa naataango ñu ngi naan ma li am Medina. waaw. si tëgg bool moo raw si Sénégal ma ne ko déet boobu buur nga demul. am ñu ne ma Kër Masaar ñoo jël dégg naa sax si presse bi ñu ni Thiès sa jël bu buñ demee bañ la tëgg bool tax na sa Kaffrine am na ñu fa jàpp yóbbu leen yóbbu leen gendarmerie kon nga xam ni foofu. tëgg bool bi loolu yëpp Ziguinchor dégg naa Kasaalika. Mhm. feneen ak feneen ndar la fa xew Kër Masaar mais HLM Grand Médine. image yi ma njëkk jot foofu la ko njëkk a jotee mais li ma dégg Yoff dégg naa fii nii seen kër gi ngeen nekk sax bool yaa ngi doon riir fii ci kër pour waxal rek ne la non xam nga bool yi foofu lañ ko doon tëgg <laughs> am nga benn dañ soxla mais sant yàlla suñu borom ñoom wane nañ seen bopp mm-hmm. benn may gërëm bu baax militant passif si élan de élan de solidarité bi ñu am envers le discours du président Ousmane Sonko dama xëy demu moon suñu siège ma taal benn rajo de la place mm-hmm. mu ni le siège du passif est pris d'assaut mm-hmm. par des militants pour chercher le bracelet de la liberté mooy le bracelet Pastef caq yi ngoon di takk noonu mais du caq bracelet du ah, caq xam nga pour wax ne la non franchement je suis fier de mon peuple je suis très fier de mon peuple mhm. wallahi je suis fier de mon peuple et je le dis et je le répète militants yi sympathisants yi mhm. le peuple de façon générale mag ak ndaw góor jigéen non dañoo bàyyi Ousmane Sonko wéet ci dara. d'accord dañ ko bàyyi lépp lu mu wax muy bëgg bëgg ñu taxaw ci. d'accord ba tax na cette journée du 15. Hmm. sera gravée dans les annales de l'histoire d'accord li ñu tërale woon ci waxtu. d'accordal ne. Hmm. Ousmane Sonko et le Pastef ont réussi. Hmm. à faire faire de la politique autrement. Mhm. et c'est important. effectivement ces formes de de d'expression. Mhm. de nos libertés cette forme d'expression pour s'indigner. Mhm. des violations répétées et répétitives. je pense que c'est à l'honneur de tout le Sénégal. d'accord et puis ça me fait plaisir su ma déggee ñu ne y des pays africains qui nous copient même boo ñu ne ay manifestations ñu ne am na ay pays européens qui nous copient mais attendez. war nañoo bàyyi xel le peuple ah, sénégalais. mais yow yaa ngi ci kontaan kon ñu lay copier.